ñuy def mu tudd suñu artisanat suñu koom-koom nga xamante ne dañuy dem fépp ci Sénégal loolu nag euh, ñun bi ñu ko commencé def léegi gis nañ ne am na ay am na ay euh, ay jéego kooku dafay dafay dafay dafay aaju euh, su ma yeggee naa ci defal nopp kilifa yi su ko defee ñu ñu mën a ñu mën ko yeesal ndaxte Ziguinchor quand même mérité na village artisanal bu bu moderne bu mucc ayib boo xam ne day répondre ci potentialité bi nekk ci région bi ba pare day mën a contribuer comme euh, euh, milieu d'attraction pour le pour le tourisme. yaakaar naa bu ñu ci gënee góorgóorlu rek euh, ñun ñu jiitu di di joxe exemple yaakaar naa bu yàggee artisanat bi dina yem ci suñu dëkk dinañ mën a mën a jëfandikoo suñu yëfi dëkk te dina nekk alal buy des ci dëkk bi.